السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله نون سوني كون في اك مولانا الشيخ ابراهيم ياس ني تشيرنو امادو ديالو سوني مام بي نيكا نود في نيغي واخ باي امادو تشام gannaaw loolu yàlla def sama maam ku ñuy wax Thierno Amadou Diallo yàlla mu nekkoon dëkkoon labe yàlla mayoon ko muy waxtu bu nekk rek dafay tëdd rek bu tëddee rek du mun a nelaw waxtu bu nekk rek jëmm Mawlana Cheikh Ibrahim yi di koy feeñ di ko wax na ko ñëwal Kawlax yi yàlla def ko muy dox di dox di dox ba yegg si fi ñu naan Gàmbi ci kër euh, Cheikh Omar fay bu Gàmbi yàlla def mu nekk foofu ci nodd ba mu yàgg ne bi mu déggee baatam ne kiile il faut que mu boole ko ak sëriñam mi Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala ci la ko bindee leetar na ko demal ci Mawlana Cheikh Ibrahim Niass fekk ne moom mi ngi dem ut wër baay waxtu bu nekk ci dundam bi mu ñëwee Kaolack fii def bay boole ko ak ku ñuy wax Baye Amadou Thiam mooy son maam bu jigéen ki ko jur moo nekkoon fii di noddal Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu taala anhu gannaaw ci loolu mu ñëw bi mu ñëwee si dundam yëpp bi ñëwee ba yegg ci dëkk bi ci jumaa ji rek la ko def tey jii yàlla def sama maam boobu di noddu di nodd ba mën a tut yarama maytu ko te waxtu bu ñëwee di noddu rek balaa moo tijji jumaa ji rek dana fekk sama maam boobu ci buntu jumaa ji bi mu ba mën a tut mu wax doomam yëpp kenn mënut a kii la waxee ne damal ngeen waxal ma noo waxtu bu waxtu bu fajar jotatee te jumaa ji ñëwuma rek sama yaram neexu na nodd yàlla def si liggéey boobu la nekk dundam yëpp si jumaa ji la ko jox ba tey njabootam bi la yàlla def ñu nekk ci jumaa ji di ko dundal si waxtu juróomi suma papa ki ñuy wax sëriñu Aliou Diallo gannaaw suma maam bi suma maam Baye Amadou Cham làqoo moom la moo laa naa Mawlana Cheikh Ibrahima Niass jox jumaa ji ñu ngi koy wax Thierno amatu Diallo gannaaw loolu macha allah sama papa ku ñuy wax Serigne Aliou Diallo gorko ko moo yor jumaa ji di ko dundal ba jamono ba jon yàlla tey jii te yàlla yàlla guddal fanam may ko wér mu nekk fa ak imam Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé ñu nekk ci seen wet di leen di leen di leen dimbale si ci liggéey boobu di ñaan yàlla yàlla na yàlla guddal seen fan may leen wér ñun nag weer bi teroo moom dañuy sant yàlla comme ni ko Baye waxee woon bu weer bi teroo waxtu boo ko xoolee kar xanamam da nga koy gis nga xam ne weer sallallahu alayhi wa sallam muy wax hani han li ibrahima laaha ilaaluhu ilaalun bada linnaazirina jamaaluhu ilaalun rabihin fihi jaa muhammadun fa tamma lana albushra wa hamman nawaaluhu weer bi bu teru woon bàyyi dafay am mbétt dafay kontaan bu tabee woon dafay gën a tabe si weer bi bu béggoon dafay gën a bég si weer bi moo tax bu weer bi teroo rek ñun ñëpp dañuy futteeku jénn suñuy kër jénn suñuy néeg lépp rek pour dundal sunna so nga xamne ne Baye dundaloon ba waxtu bi te ñun ñep ñu dundal ba waxtu bi di ñaan yàlla suñu khalifa al sheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass yalla yàlla guddal fanam yalla yàlla degeural ay yaramam may ko gudd fan may ko wér yaram ci barki yonent sallallahu alayhi wasallam ba yàlla delo ci ko ci jaamu ñoo fekk ñep ci jaamu di leen gëreem yéen Dakaractu di leen ñaanal yàlla yàlla gëna degeural seen liggey yàlla gëna leen defal leen tawfiq defal leen najah defal leen taysir فين بق سن seen télé bi yegg fa yàlla السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله